فاز قولا عظيما اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن من اتقى الله وقاه ومن يتق الله يجعل له مخرجا عباد الله هذا هو الموسم العظيم إذا حان الانطلاق الكبرى لاغتنام هذا الموسم إذا وقفت سفينة النجاة على شاكل الفلاح موسمنا أيامه معدودات معدودات فهو موسم المتقين والأبرار والأبرار المقربين إنه شهر الصوم وإنه إنه شهر الصوم والقرآن يا من وقع في الذنوب والعصيان جاءك موسم التوبة والرضوان موسم الصلاة والإيمان يا من بخل بماله جاءك موسم الصدقة والإحسان موسم المغفرة من الرحمن فهو عند المؤمنين الصادقين موسم لزوم المسجد موسم تلاوة وتعبد موسم تسبيح وتهجد وعند الغافلين سهر بالليل ونوم بالنهار ضيعوه بالقيل والقال وإذاعة المال شغلوا أنفسهم بالتلفزيون والتلفون تذكر يا عبد الله كم أيام هذا الضيف هل هو عام كامل ألا يكفيك أنك في إحدى عشر شهر ضيعت وقتك كيف لا تقوى كيف لا تقوى على نفسك في شهر واحد أن تكون ممن حافظ على أوامر الله موسم لهذه العين التي طالما التفتت يمنة ويسرة على الحرام موسم لها أن تصوم عن النذر الحرام وموسم للأذن التي طالما استمعت إلى الخنا والغنى قولوا لها صومي وانصتي وانصتي الحكيم والكلام الكريم إنه موسم للسان الذي طالما جرح وارتاب وكذب قولوا له أن يصوم ونظفوه بالذكر وكلمة الحق إنه موسم لليد التي لليد أن تصوم من أذية العباد موسم للرجل التي طالما قادت يمنة ويسرى تسكعت بها في الأسواق الصلاه ووقفت بها في المنتديات المحرمة قولوا لها صومي عن المسجد المحرم يا ويلنا من الله يؤتينا يؤتينا النعم ونسخرها في المعاصي فإنا لله وإنا إليه راجعون دعنا سنتي الله سبحانه وتعالى julli ci yonente yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam di seetle ne benn buur amut wala benn benn di sellal Muhammad alayhi salaatu wa salaam jaami yàlla la yonentam la te li ko yàlla yónnee mottali na ko balaa muy uyu boromam subhanahu wa taala waaye di wax ne wax ji gën ci wax yi mooy wax yàlla subhanahu wa taala waaye yoon bi nga xam ne mooy yoon bu jub mooy yoon yonente bi alayhi salaatu wa salaam la nga xam ne nag moo gën a yees ci mbir yëpp mooy yu ees ya nga xam ne nit yi dañ ko dugal si diine tuddee ko jaamu yàlla fekk amul fu ko yàlla wa amul fu ko yonente bi waxee wala mu defee ko wala sahaaba yi defee ko loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tuddee bilan moo wax ne nag bépp bi a reer la reer fa moo mujjee bor ma muy safara yàlla ci yàlla musal ganaa loolu mbokki jullit yi may ñaan suma may ñaan suma boppa di leen ñaan ragal yàlla subhanahu wa taala te mooy jëf santaane yàlla yi def ko na ko yàlla def sante ak na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sante te di ko di di ci ut di ci ut ngermande yàlla subhanahu wa taala waaye di bàyyi tere yàlla yi ak tere yonente yi di ci dawee la nga xam ne mooy meew yàlla subhanahu wa taala ganaaw loolu mbëgg gannaaw loolu mbokk jullit ñi nañ jamono yoo xam ne jamono ju la fa yàlla wa taala jamono la jamono la boo ne war loolu jëfandikoo ci waxtu yi jëfandikoo ci ci minute yi jëfandikoo ko bu baax a baax ak suñ kemtalaay kattan waaye jamono la boo xam ne mën nañoo wax ne gaal ba teer na teer na place gaal ba teer na si teeru ba nga xam ne mooy teeru mucc bu bu kenn ba nangu mu bàyyi la gannaaw waaye nañ xam ne jamono la joo xam ne ay ay fanam yu fan yu néew la amee waaye jamono la joo xam ne ñu ragal yàlla subhanahu wa taala ak ña nga xam ne ñu baax lañ ñu ñu yàlla subhanahu wa taala seen jamono la tam waaye jamono la joo xam ne jamono alquranul karim la waaye yow waa ji nga xam ne tooñ nga sa boppa ci mooy yàlla subhanahu wa taala na nga xam ne jamono la yàlla subhanahu wa taala daf koy jégal bàkkaar yi ma dal di dellu ci moom subhanahu wa taala ko jégal mu jégal la sa bàkkaar yi waaye yow ma nga xam ne yaa ya yow la yàlla dénka alal nga mun a joxe nga mun a maye nga téye woon sa alal na nga xam ne jamono la joo xam ne jamono maye la jamono joxe la yonente bi alayhi salaatu wasalaam amul a baax ku ko doon gën a maye waaye loolu def doon yokku ci weer gi muy weeri koor kon gaabal nga joxe ci sa alal jooju alaaxira yàlla subhanahu wa taala def la koo nañ xam ne jamono la joo xam ne ah, nit yi nga xam ne dañ ragal yàlla subhanahu wa taala nit xam ne dañ dañ xereñ ci seen diine dañ cee góor bari li ñoo li ñoo dem si jàkka yi si jàkka di jàng teer yàlla subhanahu wa taala di fa sàbbaal yàlla di fa defal nga xam ne mooy alkaakam di jaamu yàlla subhanahu wa waaye na ah, ah, nga xam ne nag ñoom yegguñu li xew faate nañ seen boppa nangu nañ seen seen bakkan wala seytaane jàngal na leen mbon ba nga xam ne bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne tam ci weeri koor dañoo takk seytaane waaye ñoom ay nit lañ yoo xam ne seytaane soxlawut leen ngir ñoom seen bopp am nañ si si ñoom loo xam ne seytaane su fa nekkul sax loolu moo leen naa dox la mooy xol xol du bon la nga xam ne dafa nii di def la nga xam ne mooy muy yàlla subhanahu wa taala ñooñu nag ñoom dañoo faate geneel bi nga xam ne moo nekk si weer dañ leen a fekk su guddee duñ nelaw ngir su su boor setee ñu ñu nelaw dañ leen a fekk tisbaar ba mbare ñu ngi si nelaw taakusaan ba mbare ñu ngi si nelaw saa yuñ jógee ñu boole leen ne dañoo fay na nga xam ne loolu ngay def noonu caaxaan la ngir loolu du bor yow yaa ko def yaa ko tey loolu nag du bor fa yàlla subhanahu wa taala da nga xam ne julli jooju ngay julli du julli bu yàlla soxla subhanahu wa waaye ay nit yoo xam ne tam si télévision ay tim yoo xam ne la faa feeñ lu neex yàlla subhanahu wa taala suñ wax ay ay dara nga faa gis yoo xam ne su dogul sa kootam dana wàññi la nga xam ne mooy yoolam wala la nga xam ne mooy jeer ba nga xam ne moom nga ci waroon a am yow jaam yàlla subhanahu wa taala yow mbokki jullit na nga xam ne gan gi nga xam ne mooy ñëw muy weeri koor ak du fi yaaga ay fan yu la fee am benn weer rek la yow ma nga xam ne tooñoon nga sa boppa si fukk ak weer ci at yi di yaaxa sa waxtu ji ci loo xam ne néewut yàlla subhanahu wa taala xanaa doo mun a góorgóorlu si benn weer bi rek nga def ko ci lu neen yàlla subhanahu wa waaye na nga xam ne jamono jot na sa bot ji nga xam ne nekkoon na di xool loo xam ne neexut yàlla subhanahu wa taala nga koo xoolee lu neexut yàlla subhanahu wa taala jamono jot na pour nga wax ko ne xool lu xaam bàyyil lu xool lu neexut yàlla subhanahu wa taala waaye it na nga xool li ngay yàlla subhanahu wa taala nga jàngal ko waaye jot na jot na pour sa noppa yi nga ne wax yu bon rek la doon déglu musique rek la doon déglu ak ak yi ak ak yi ñoñam jamono jot na pour nga wax ko ne déglu la nga xam ne nag mooy wax yàlla subhanahu wa taala déglu la nga la nga xam ne mooy du ay waare waaye déglu la nga xam ne mooy wax ju baax waaye jamono jot na pour laa mi nga xam ne dafa nekkoon rek di jóg waaye làmmeñ ya nga xam ne dafa nekkoon rek di rambaaj làmmeñ ba nga xam ne ay fer rek la nekkoon di def jamono jot na pour nga raxas ko ci ci tudda yàlla subhanahu wa taala waaye nga raxas ko ci wax wax wax dega nga soril te lépp loo xam ne du wax bu ne yàlla subhanahu wa taala waaye jamono jot na pour sa loo ja nga xam ne moom nga doon laalee lu neexut yàlla subhanahu wa taala nga dalli ko tiye mu bañ a laal lu neexut yàlla subhanahu wa taala waaye jamono jot na pour sa tànk boobu nga xam ne la doon yebu yebu fa néewut yàlla subhanahu wa taala moo la doon yebu fa ñoo moyee yàlla subhanahu wa taala nga dal di ko tiye woon ko ne foofu nekk place boo xam ne war nga ma faa yóbbu waaye fan ma war a yóbbu mooy si jàkka yi fan fan nga fan ma war a yóbbu mooy fa ñoo subhanahu wa taala fan ma war a yóbbu di seeti suma mbokk ngir yàlla subhanahu wa taala soo góorgóorloo nga jàngal sa cër yi lii da ngaa gis ne dal di noonu ngir lool loo tax weeri koor ñëw ngir yàlla subhanahu wa taala dafa ne laallakum tattaqun mooy ne soo leen ooree weeri koor ngeen ci jëlee la nga xam ne mooy ragal yàlla subhanahu wa taala waaye doy waar a ngi nii ne yàlla subhanahu wa taala ma nga xam ne moo ñu jox ceer ko fa yàlla subhanahu wa taala xeewal yooyu la ñoo jël di ci moyee yàlla subhanahu wa taala kon ñu wax ci ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun muy musiba yu rëy yoo xam ne dañ ci gis suñ boppa aqulu ma tasmauna wa astaghfirullah li wa lakum wa li saa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من السنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذه الأمة في شهر رمضان صلاة التراويح التي اتفق أهل العلم على أنها سنة مؤكدة في هذا الشهر الكريم وشعيرة كبيرة من شعائر الإسلام وقد ثبت في أحاديث كثيرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمره, يأمره فيه عظيما منها قوله عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جماعة ثم ترك الاجتماع عليها مخافة أن تفرد على أمته كما ذكرت ذلك عنه أم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ثم استمر المسلمون يصلونها كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى جمع معهم عمر رضي الله عنه على إمام واحد يصلي بهم التراويح روى البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى إلى المسجد فإذا الناس أوزاع أي جماعة متفرقة يصلي الرجل من لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط أي جماعة جماعة من الرجال فقال عمر فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب <clears throat> ثم خرج خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون اولهم كان ابن سندي الله سبحانه وتعالى يلجي النبي عليه الصلاة والسلام نعم، من قبل من جله bokk na ci nga xam ne moom lañ yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal ci weer bi mooy naafile guddi mooy lii nga xam ne moom lañ jee def bés bu nekk muy salaatu tarawih te dara la loo xam ne sunna la yoo xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam def ko doon def waaye borom xam-xam yi nangu ñoom ñëpp na ah, ñoom ñëpp nangu nañ ne lii de sunna la yoo xam ne ju dëgër la jëlee ko ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci weeri koor yi bi waaye it mandarga bu mag la tam ci mandarga diine islam waaye ay xadiis yu bari sax nañ jóge ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಬಿ ಅಲಿ ಸಲಾತ್ ವಸಲಾಂ tadi dia xam ne yonent bi alayhi salatu wasalam a ngi ñaan julli di julli naafila bokk na ci hadith yooyu mooy fa yonent bi alayhi salatu wasalam waxee ne képp koo xam ne taxaw na guddi guddi weeri koor muy naafila na naata weeri koor te def ko ngir utub ak def ko tam ci ya ci gëm yàlla subhanahu wa taala dina ko yam yi nga la muslim ñoo solo waaye yonent bi alayhi salatu salaatu wasalaam daf ko julli waaye am na ci bés boo xam ya ne yonente alayhi salaatu wasalaam daf ci dajale mu dal di leen jiite bañ jullee ba pare ba sa élection bu gis ni nit mu dal di taxawal loolu ngir lu tax mu taxawal ko mooy ne yoon moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa ragaloon ne su ko continuer yàlla dina ko def farata ci li nga bi te yonente bi alayhi salaatu wasalaam ku bari woon yërmande ngir naafila de kenn kenn ñu lay wax ne lawlo den si am bakkaar wala te ko xam ne tam naa fi lawlo di ba sa koor di du nangu waaye tiyaaban ci boo xam ne tiyaabu ju mag la su nekkoon xarit bi nga xam ne moom lañ tuddaa duñ ko di jiital su nekkoon ne loolu rek a farot loolu doyoon na ngeneel ne yàlla subhanahu wa taala def laa jéegal sa bakkaar yi nga xam ne moom nga jiital yonente bi alayhi salatu wasalam dal di taxawal la taxaw mu taxawloo mooy ne dafa ragaloon ne yàlla subhanahu wa taala mun na koo faratal ci xetam yi mun ngëmb la def ko ci ñoom waajib mooy ne te farata mooy loo xam da ko war def ci forcé soo ko defee yàlla def bilal la ci tiyaabu bañ koo def mun nga cee am baakaar baakaar yoo xam ne mun na te musal ne ko boole nit yi di continuer suñ duggee si jumaa yi ku nekk di jullil boppam ba jamono Omar radiyallahu anhu Omar ibnul Khattab dal liñ dugg si si jaga yi hadis bi Abdurrahman ibn Abdul Qari moo ko solo mu ne mu ne eh, na ne mosoon naa ànd ak yonente bi ak ah, Omar ah, ah, ibnu Xataab radiallahu anhu ñu eh, dal di dugal si jumaa ji te kanit yaa ngi julli kale yaa ngi jullil boppam mu am ko ne dina jiite ay ay nit kale tam di jiite ay nit ba Omar ibnu Xataab gisee loolu mu ne lii daal ci ñaan mooy ma dal di ut benn imaam joo xam ne mooy jiite ñëpp mu ne ci bee bañ Omar ibn Khattab taxaw loolee taxawalee loolu mu dal di jiital ka nga xam ne mooy Ubay ibn Kaab mu ne leen yow ne ko na nga jiite saxaaba yi ñu dal di julli ci gannaawam beneen mulai madali allah tak omar omar ibnul khattab feta feta mi jangi julli ci benn imam mulai bidang bidang ini ngi nii joo xam ne ju rafet la loolu nag moom kenn du ko mun def dalil ci rafetal sa bidaa ngir la ko omar ibnul khattab def yonente baa ko defoon alayhi salatu wasalaam may ne yonente bi alayhi salatu wasalaam boore woon na sahaaba yi ci benn imam ci jamonom waaye la taxoon mu bàyyoon ko illa ba nga xam ne moo fa nekkoon mooy ne dafa ragaloon yàlla dal di faratal loolu ci moom waaye gannaaw yonente bi alayhi salatu wasalaam lu nekkutoon farata ci jamono yonente bi alayhi salaatu wasalaam si jamono Omar du mun a nekk moo tax Omar Xattaab dal di ko delloo waat ca ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam defee woon kon loolu du mun a tax bidaa xasana am na ngir Omar lam def yonente bi alayhi waaye ñu ñu jël ñu dal imaam yi nga xam ne ñoo dee jiite li nga xam ne mooy naafila ñu ragal yàlla subhanahu wa taala ñu ragal yàlla julli julli joo xam ne mooy julli ju neex yàlla subhanahu ak raaka yi lu mun a néewee nga def ko nam neexi yàlla subhanahu wa taala bañ koo yaakamte sa julli na sa sa jàng mi la ju tey sa ruku yi nekk ruku yu sa sujud yi tam nekk sujud yu tey waaye la ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax amana imanan wahtisaban képp koo xam ne julli na naafila ci ragal yàlla subhanahu wa taala ak gëm yàlla ak tam xam ne mooy tiyaabu yàlla na ko jéegalal la xam ne mooy bàkkaaram yi naafila kenn ko julli ne naa ci génn rek naa ko def génn ci moo tax jama xam ne ñoo dee gën a gaaw si julli da ngaa foog ne de waa dëkk bi yëpp foofu lañ dee daw li tax mooy ne moo dee gën a gaaw si julli mooy tuma julli façon julli ya nga xam ne moom la waa ja julli woon si jamono yonente bi alayhi salaatu wasalaam defoon mooy almusiu salaatu te julli ba pare nuyu yonente bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi ne ko demal nga julliwaat ngir lii nga def du julli mu demaat julliwaat nuyuwaat yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi ne ko demal nga julliwaat ngir lii nga def du julli mu def ko ñetteel yoon bi yonent bi ne ko demal nga julliwaat mu waat ci yàlla subhanahu wa taala ne munuma benn julli lu dul bii ca la ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam julli jàngal la nga xam ne noonu lañ waroon a julli te kooku julli yam doon julli mooy ay jàng yu gaaw ay ruku yu gaaw ay sujud yu gaaw ñaata ci ay imaam yoo xam ne ñoo lay jiite ay naafila façon julli yooyu lañ di julli wallahi ilallahi la ilaha ghayru so moytul allah la yalla la tegal yo xamne bu met la mo dol kenn la ci mëna wétal wala qul ma tasmaun allahumma ij'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna warzuqna tinaba warzuqna tibaa وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او علمته أحدا من خلقك أو استعصرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب وهمومنا وهمومنا اللهم اعف نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اعف نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب ما يقربنا إلى حبك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وسائر وسائر أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين